waaw bu Malika espoir waaw waaw avenir bu Kër Massar Molo temps pour moi dama juum avenir pour écurie Kër Massar Molo coach Matli moo ko toogal 16 Matli moo ko 16 avenir face à espoir espoir boualo. espoir boualo face à avenir bu Kër Massar boo koy quatrième combat de la soirée boo koy quatrième combat de la soirée août 2021 ñoo ngi stade Iba Mar Diop espoir bu Waalo avenir bu Kër Massar waaw léegi mu sifflé génn na diggante monsieur l'arbitre sifflé na espoir bu Waalo avenir bu Kër Massar avenir bu Kër Massar rofoon na ko avenir na ko nañ ci suuf avenir ngi ci waaw waaw espoir avenir bu Kër Massar espoir bu Waalo avenir espoir waaw waaw takk ko dem nañ ci suuf avenir face à espoir avenir moo jekku avenir moo jekku waaye espoir bàyyiwul espoir bu Waalo bàyyiwul avenir moo ko jekku attention avenir attention fedd na ko kaw avenir espoir avenir espoir avenir moo jekku espoir bu waalo avenir bu Kër Massar moo jekku avenir espoir attention avenir moo jekku waaw waaw dan na ko avenir dan na ko avenir dan na espoir bu waalo avenir dan na ko avenir dan na espoir bu waalo waaw waaw espoir bëri na ba dee waay avenir avenir bu Kër Massar dan na espoir bu waalo avenir bu Kër Massar dan na espoir bu waalo quatrième combat de la soirée quatrième vainqueur de la soirée avenir venir Kër Massar dans na espoir bu Wallo. Waouh, nous sommes du cinquième combat de la soirée